campagne bi ñu nekk nag mooy dañu gis ne dafa am loi bu ñu tuddee loi criminalisant le viol et la pédophilie léegi nag Radone dafay dem ci 14 régions Sénégal yëpp euh, mu waxtaanee ko waxtaanee ko mooy euh, pour que nit ñi bu ñu xamee mënu aussi bu ñu demee si seen gox goxaat waxtaanee ko nga xam ne ne loi bi nit ñi dinañ ko xam te buñ ko xamee dina dina tax ne jeexital yu bëri dina dëñ dootul viol bi peut-être mën a wàññeeku loolu moo taxoon tey ñu engagé campagne boobu. choix tubaab yi nag du ni dañoo tëb rek choisir Touba parce que dañu gis ne boo demee tribunal grande instance Diourbel bi nga xam ne foofu la àttee ñi def ay ñaawteef yooyu dañu gis ne ñu bëri cas yu bëri Touba lay jógee. 114 cas 2017 euh, fii fan yee passé déggoon ngeen fii aussi kaa boo xam ne ne benn sëriñ euh, daara dem na ba violé lu war a mat ñaar fukki xale yu jigéen ak euh, juróom-ñett. fan yee passé aussi woo nañ ñu fii si Mbàkke ci benn cas de viol benn benn benn élève kon cas yi dafa xaw a bëri moo tax na ñu ne tey nañu ñëw Touba wàcc si Touba ànd ak sëriñu daara yi ànd ak communauté bi ut nag benn magistrat bi nga xam ne ne kooku mooy ñëw wax leen lan mooy loi bi pour ñoom tey ñu jël loi bi approprier loi bi pour mun ko wasaare si nit ñi naam nag du fi du du loolu rek lay na Raddho nar a def Raddho dafa nar a campagne bi nga xam ne ni dina former sëriñu daara yi dina def plan d'action parce que léegi euh, maison de justice mu ngi wax dimbali leen ci benn plan d'action dinañ def plan d'action mi nga xam ne dinañ former sëriñu daara dinañ former bàjjenu gox yi dinañ former sax journalistes yi pour ñu mun a xam nan la ñuy wasaare affaire u viol ak pédophilie ànd si nag ak yeneen partenaire pour rek njeexital bi mooy que nit ñi bu ñu xamee cas yi gën a wàññeeku. amul benn loi bu problématique euh, te euh, mënuñoo xeex ne dañuy def dañ koy criminaliser ba état bi nangu ko ba député yu voté ko tey ñu bugg a wàññeeku loolu euh, recule en arrière boobu mënatul am li mun a am kay mooy bu fekkee ne juridiction yi dañu am ay ay dossiers yu bëri mooy état bi na recruter ay nit état bi recruter ay magistrat yu doy parce que tey nee nañ ñu fii euh, mille 2030 magistrat yu bëri nañ dem retraite te état war na soxla lu war a mille 1030 magistrats kon état bi moo war a def ay effort recruter ay magistrats kon su recruter ay magistrats aussi ñu mun a tey juger mu euh, te kon dootul am engorgement bi procureur bi magistrat bi doon wax tey engorgement boobu dootul amati si juridiction yi